acca mbokk internet yu Wassare Lamb ak Lutte TV ñu buur ñu ngi lay nuyu. waaye nañ la fay nañ la di nuyu àdduna bu baax a baax a baax di nuyu gaa yëpp waaw di nuyu waa Géej waa di ñaanal Bill Dassène mi nga xam ne moom moo ñu fi indi tey doon def point de presse waaw di ko ñaanal yàlla defal ko ndam quoi si combat bi moo jëm si soo caatu yof te xam nañ ne dina daan caatu yof ndax parce liggéey na quoi waaw nekk nit ku baax koo xam moom su ma waay la daal maanaam bu boo bu bu buñ génnee si làmb maa moom daa am loo xam dañ koy dund sama diggante man ak moom sama nit la sama xaritu benn bakkan la parce que Serigne Touba Mbacké billaahi wallaahi taalaay ñu gis Alioune Fat Fat yéen ñaar ngeen ngeen bokkoon même tàkkusaan te yéen ñaar ngeen ñëwaat seen relation te lan la waaw suñ relation rek muy maanaam moom dama ko yàgg a bëgg daal te boobu guñ moom bu daan bëre wallaahi heure buy bëri dama koy yéen a ndam xaw ma lan la nag barke Serigne Touba maanaam ak nuñ tolloowee xama mooy loolu ñun Nduro daal maanaam xam nga rek moom dafa ko a estimé daal moo waral tamit benn bëre bu ñu bëre sax sama diggante moom yàgg naa sama combat ma moom mais man maa bëggoon combat bi te parce que xam nga rek maanaam xol rafet daal borom baax la te làmb sport la ñun ñooy mayante xaalis maa ni maa moom bëre nañ ba pare amaan naa combat ñooy mayante xaalis mais ñun bu ñu bërewul lan la ñuy def man làmb mooy sama métier man damay liggéey de man làmb sama métier maa ngi ni amaan naa combat te mooy loolu maa moom dimanche mooy loolu ma rek sama waa waaye ginnaaw bañ sant yàlla jul si yonent bi sant si ñaari waajur bilaay bilaay bu ku nit ku baax a ngi ku ñaax iñaan barke maam Bamba man bu dul dara man dama doon toog ay lambam esaan njaaram barke borom daaru lambam yu bëri teewee naa ko di ko bilaay maa ngi gën a doon booy barke yàlla may seetaan ay lambam ba muy bëri ay jënd mbay loolu moom xam xama xam na xam na loolu yàgg na lu tay bàkki maam Bamba waaw 2014 xam na loolu dafay yàgg mm. photo yooyu ba léegi moo ngay man bàkki Seexul Xadim waaye nag suñ doomu day dañ koy ñaanal ndam muy Bulldozer na Bulldozer maa moom bépp la ba ñuy xale yu ndaw bàkki borom daaru Malika mbooloo comme ni nga ko waxee sànq Malika mbooloo maa moom fa gënoon a doon ay ndaw duñu am ku ñu contact ak maa moom ko say contact bàkki borom daaru xanaa kay ñaanal ndam ci digganteem moom ak caaru yoob mu daan ko jël gu set wi ñu ñëw feedoo ko mooma diggante ak mooma bi la kii bila la seer ak saay dañ koy ñaan mu gën a dëgër ndax baabaal kii saay baabaal bu ko neexoon tey du fi teewee bilaay lii yombul daal dañ koy ñaanal a ju bëri yàlla defal la jàmm bagi borom daal acca buur ñu gis nga naam nga jóge si combat am defe rek jël beneen combat lu waral loolu waaw lu waral loolu nag mooy comme lu ma wax la léegi sama métier man aw ma benn métier wallaahi aw ma benn métier lam mooy sama métier su ma bërewaatoon su ma jugaatee si combat bi damay taxaw xaaraat avance day ñëw ma jëlaat mais lan mooy sama métier si laa bëgg a tere sama papa si laa bëgg a tere sama yaay xam rek yor jabar yor ay doom kon su ma bërewul la laay def lan mooy sama métier barke Serigne Touba sport la daal waaw ñooy mayante xaar la ñun ñëpp ñoo far man ñi ma bëreel ñëpp maa ngi ñoom ay gaan lañ mais biir lamb ji dinañ jaay combat bi yëngal xama amateur yi loolu lañ soxla daal waaw da parce la daal sunu culture la mais lépp fair play la bu jeexee après jeex ñoo bokk nday ñoo bokk baay fu mu toll nii nii nii nii rek bu lii jeexe ne après damay dem ba gaalam seeti ko barke Sëriñ Tuubaa nga nekk mbër waay temps yi nga gis combat Balla Gaye ak Boy Niang Balla Gaye am si defet noo gisee combat boobu. waa nu ma ko gisee rek muy combat bu metti quoi xam nga rek combat yi moom pare nañ ko ci niñ ko waroon préparé lépp sunu papa sunu lépp Balla Gaye xam nga gis nga keroog nu mu demee stade ñu ñëw xam mu am nu mu demee daal mais. moom dañ koy wax ne daal bu mu découragé daal gàcce ngaalaama Balla Gaye 2 moom ndaanaan la waaw maanaam lii nii du dara daal lii làmb la rek moom dafa doon daan ay doomu jàmbur ku daan yaxe yooyu job yi ne kooku dafa wàccoog waa Géejawaay mais dëgg la defet bi met na trop mais dafa gën waaw dafa gën te parce que nga nekk mbër jël quatre avance mbër ñëpp di la liggéey ñëpp di liggéey sa kaw ñëpp di la préparé mais loolu nag dafa yéen yéen yi maanaam yéen boobu noonu nag dafa diis ñun Balla Gaye nañ ko bu baax waaw maanaam li mu def mbër ñemewu ko jël quatre avance ay mbër yu mag ñëpp nekk sa kaw kon lii nii bu demee nii rek sant yàlla la daal dafa gën parce que Serigne Touba Mbacke. mais si biir làmb ji. Balla Gaye ban heure la def ba daanu. waaw Balla Gaye boobu su may xool heure dama naan heure la du heure da parce que làmb la maanaam dem bi mu dem quoi waaw da parce que Boy moom maye woon une minute te Boy day naxaate waaw mais une minute yooyu noonu ba mu jotee boo ñaa ñëwul maanaam dafa waroon taxaw rek déglu ko daal mais gis nga maanaam fëggoom daal ak nekk jàmbaaram nekk gaynde bëggoon xam nga teel a libéré gars yi moo waral sax li am yëpp am mais si blessure lañ bërewaale waaw maanaam dañoo amaale dañoo am blessure bu métti boo xam te man maa ngi si bi Balla Gaye 2 bu toogee siège bi tànk mënu ko bank da koy tàllal ñu ñëpp ñu xam blessure ba xam lépp waaw combat bi daal comme que la demee rek sant yàlla la daal waaw. ñu gis mu sonn loolu loolu waa Guédiawaay am na fa douze combats presque douze victoires peut mun mën nañu wax la dëgg rek moo ko daan six la rek six la te dese na ko man moom pareegul Guédiawaay de mu ngi naan ay day teg seize heures pare fu ma fekk seize heures ma koy rajaxe boo ñaa maag moom dañ bëre far force mënu koo dindi ci làmb xanaa mu bàyyi bëre mais boo ñaa lu mu yàgg yàgg yàgg maag moom dañuy bëre parce que garab ci kaw lay fekkantee man dama gëm sam bopp damaa gëm ne boo ñaa maag moom dañuy bëre far force barke Serigne Touba Mbacke billaahi Boy Niang foog mu dajak jàmbaar yi moom ba léegi pareegul de moom pour moom daan Balla Gaye rek tax na géejawaay noonu force maa moom dañuy bëre daan na waaw moo tax man la man géejawaay laa dëkk mbër laa Boy Niang lan la ma ëppalee ci làmb Boy Niang bu dee tur ëpp tur ci làmb bu ma ko ëppul tur ëpp tur ci làmb yee yaa ma a xam dinañ bëre far force moom waaw géejawaay maa ko fa dese dinañ bëre wallaahi maamu dinañ bëre ma rek. mais sonal bu leen sonal nag sonal na leen trop nag. du sonal sax parce que lamb la rek. barke Serigne Touba Mbacke xam nga rek man li ma def Pikine du ma taxaw ba wax ko magam laa daan Malick Ndiaye 37 fu maa ko daan maa ko daan konko loo xam musul am ci lamb man damay ñëw indi loo xam musul am ci lamb Malick Ndiaye tara magu magu magam xam nga rek kon tey man li ma def Pikine du ma taxaw mukk di ko wax ñi ma fa daan babat ñaata nit laa daan Pikine est-ce que dinaa taxaw di ko ndamoo du ma ko ndamoo moom mooy daan di ko ndamoo mais man li ma def Pikine ay nit laa fa daan Guédiawaye moom ay nit la daan man ay nit laa daan Pikine daan magam Malick Ndiaye 37 fou waaw xam nga rek waaw noonu la demee quoi. wax nga ko léegi dafa jël ay combat yu bëri mu dese ko benn combat boo xam ne ak Eumeu Sène te Eumeu Sène bu ma gisee ñoom daan na ñaari yoon est-ce que loolu nekkatul beneen risque. non instant dañuy gàddaay force ñun dañuy gàddaay trois ans bu dëgër defaru instant Balla Gaye mu ngi INSEPS mu ngi liggéey liggéeyu yu métti instant bii pour yéen day nelaw nelawul de wallahi mu ngi si entraînement am mu ngi France instant yi dañuy waajaat defaale benn gàddaay bu sori boo xam trois ans ñu defaru ñëw ñu nekk ñu fii di Balla Gaye 2 du mbër bu ñuy parax paraxee maa ngi dégg ay Eumeu Sène ku nekk di di di wax bëree gu ñëw ak yow heure bii dinañ defaruwaat ba naaj ñëw taxaw. Ah, mais mais contrat la signé le 31 loolu yëpp dëgg la wallaahi duñ bëre 31 juillet man maa la wax loolu xanaa nekkul man maa lay wax. duñ bëree 31 juillet ñu nag Eumeu Sène dañuy defaru dañuy def gàddaay ñëw pare ñëw taxaw jàpp ndaamalu dóor ko dóor yi métti woon ko ginaaw dem suñu yoon. da ngeen moo tax waroo ndaw leen bëre. non pare nañ sax tax déggul ma la maanaam Balla Gaye gàcce ngaalaama jël 4 avance ñëpp nekk sa kaw loolu mbër ñemewu ko moo tax Balla Gaye de gaynde la barke Serigne Touba Mbacké. dernière question kon lañ ñëw géej waay ñu ni Balla buy def contact dafa war dem si la de Guiers pour contact ak moom. parce que ñoom bay nekkee jeune ànd ñoom ñaar def contact ay victoire la doon tegle ñu bëri jàpp ne Balla Gaye dafa ànd tuut ay mbër looloo waral mu nekk si tonton bi. non Balla Gaye de mu ngi ànd ak ay mbër maam gis nga gars yi wax loolu dañuy jaxase rek ñun géejawaay léegi ñu ñëpp a booloo 100 pour cent bi kenn mënuñoo jaxase ñuy wax loolu lépp dañuy bëgg a jaxase ay ay kii moo ñun kenn mënuñoo jaxase Balla Gaye de ay fils à Balla ak Lac de Guiers ak yow Balla Gaye de guddi gi guddi gi fii lay nekk Tivaouane Peulh man léegi man maa ngi Tivaouane Peulh chaque guddi mu ngi Tivaouane Peulh di fa contact ak fils de fils Balla ak champion yi ñoom ndigal ak ay Lac de Guiers ñëpp a fa nekk ay Sa mais xam nga rek maanaam ñooñu xamuñu waaw Balla Gaye de guddi lay jug ànd ak gars di contact ay Lac de Guiers ñoom ñëpp waaw mais xam nga rek nekkul lu ñuy wane di ko fësal te dañoo nekkoon si préparation combat ñiy wax loolu ñëpp xamuñu lu ñuy wax dañuy dañuy wax rek. jaajëf waaw mais rek bala ma wax dara may sant sama doomu ndey. kii sama nit la damaa bëgg Basirou Ka damaa bëgg sama doom ndey wii nga may ko terrain barke Serigne Touba Mbacke Basirou Ka loolu rek laa soxla soxlawu ma leneen pëccoo waa Amérique xam nga di bëggee diaspora bi sama góora Espagne xam nga di nuyu gaa yëpp di nuyu pëccoo bu baax di nuyu Kankuran di nuyu jabaram uli nekk nit soxna su baax waaw kanku maa sant bu baax a baax di bëggee waa diaspora bi ñëpp di wax ne nag Aliou Fat Fat a ngi nii sama doomu nday gis nga bërki démb moo jaay bëre tey ñu mooy sport xam rek lamb maanaam day boole daal maanaam doomu rek mooy loolu nañ bëri ñu ñëpp ñoo far waaw mooy loolu képp ku si bëre sa adversaire ba pare après boo leen mënee dem nekk ay gaan ngeen seetante mooy loolu dafa sagal ñun duñu ay noon ñu dañuy mayante xaalis suñu biir barke Serigne kii xool bu rafet la yor di ko ñaanal jàmm yàlla defal ko jàmm baax a baax a baax Basirou Ka maa ngi koy sant bu baax. waaw moom mi ngi ba fii nii maa ngi koy sant bu baax a baax borom Tiwaan Pël borom terrain yi waaw Basirou Ka maa ngi koy sant bu baax baax a baax di bëggee ñiy jàpp sama combat ñëpp ay tooni njaago waa diaspora bi xam nga di bëggee gaa yëpp daal di wax ne sama doom day nag gis naa sorre muy ñaxtu moto bi moo gars yi dañ ko war a jox teemas dañ ko war a jox teemas muy dem di diine barke Serigne Touba Mbacke nit bu baax la barke alxuraan bilaay comme saa yi Baye Fall da koy ñaanal tamit xam nga lu gën ci moom bilaay ndax Baye Fall borom xol bu rafet la quoi bilaay day jaay làmb dafa bokk ci làmb bilaay moo boñaa làmb la du neex waaw ponk la ñu war a may sang ñu bëri ñoom bilaay kontaan naa trop gaa